Las Palmas Guédiawaye nekk bërëb bu ñu ràññee lool ci yarub mbaam xuux mu am parc bu nekk ci ginnaaw terrain déggoo waaye tey jii ci ndigalu préfet takkader yi dañoo daal di ñëw ak mbetteel daal di commencé di daaneel néegu mbaam yi ngir bëgg leen faa jëlee ci anam yu yéeme mu doon lu ñuy métti lu lool ba sànni nañ ci ay kàddu ñu taataarlu leen ci micro Leral TV. en fait tooñ la quoi tooñ parce que euh, lii tey dafa doon beneen. beneen sama xol dafa toojaat tooyaat deux fois parce que dafa mos dafa may fàttali ko buntu Pikine bu ñu laalee acteurs yi fa nekkoon maires yi ak jeunes yi fa nekkoon tey encore ñu ñëwaat fekk ñu fu ñuy produir daal suñu kaw. man euh, comme sama frère nu mu ko waxee tout à l'heure Gilles je pense que au Sénégal euh, il faut que les gens fassent attention dañu nekk ci benn moment bu nga xam ne ne euh, tension sociale lu muy jur demain mun na yàq lu bari si réew mi te je pense que yenn administrés yi dañu xamul ne ils sont à la servitude de la nation. da ngay nekk benn jeune nga jaar benn école administration ñu nommé la préfet nga fàtte ne yow fu nga jaar fu nga jógee xaalis bi ñu lay fay salaire bu ñu lay fay mais impôt yarkatu mbaam yi lañ la koy fay impôt yarkatu xar yi lañ koy fay impôt yarkatu nag yi lañ la koy fay je pense que ñooñu dañ koy fàtte te boo nekkee un administrateur d'un département da nga war a xam ne ne yow instant yi aspect développement nga nekk et donc je pense que le pré la direction de l'environnement euh, su ñu ko doon waxee ci olof yëfu cuune lañ def parce que lu ñu def nii ça n'honore même pas le président de la République parce que ñun ñi nekk acteur de la filière porcine jógoo ñu nii rek mettre une organisation ñun lépp lu ñuy def dañ ko tënk dañ ko tënk si yoon tënk ko si ay texte ay droit dafa am Sénégal benn loi bu tudd loi d'orientation agro-sylvo-pastorale te loi boobu moo tax benn fonds existé fi mu nekk fonds national agro-sylvo-pastoral fonds national boobu lu ko tax a jóg mooy maanaam regrouper ñëpp ñu nekk si ay filières tette leen former leen structurer leen ba nga xam ne ne ñoom danañ nekk ay interprofession ñu am chance ñun ñu tànn ñu si loolu ñu nekk di liggéey donc ñun volonté président de la république ak volonté état Sénégal lañ nekk di def à travers ce fonds di structuré depuis 2016 ci loolu la ñu xeex ba nekk une organisation nationale pour instant bu nekk de 3176 acteurs dont 2032 femmes et 1144 hommes. en fait lii du avertissement lii xoqatal nit la ak yàqal nit avertissement xam nga mooy lan mais avertissement. on peut faire ça de façon civilisée ou pas donc lii tooñ la du leneen tooñ la te de plus en plus on se rend compte que euh, boo xoolee mbaam commencé nañu géejawaay kii bi ñoo na plusieurs fois inquiété nañ leen te lii nii géejawaay nañ ko def feneen en fait mbaam si boppam ah dafa am côté boo xam ne nit ñi dañ ci commencé yëpp te loolu il faut que loolu tam ñu arrêté ko. nit mënul ñëw di daan dooleem espérer si lii yore ci njabootam pendant des années nga ñëw di jour au lendemain ah yow foo nekkoon bi ñu def fii 17 ans di liggéey ba nga xëy benn jour rek nga yeew nii voilà nga ne voilà léegi il faut que comme ça noonu noonu noonu am na ci ñeneen ñu nekk ak ñoom donc il euh, y a plus de 200 personnes yoo xam ne dañ fiy xëy avec un cheptel de 1093 porcs estimé à 71 million de francs donc euh, aujourd'hui à notre grande surprise dañu woo fekk ñu dañu daaneel suñu parc mbaam yi mbaam yi yëpp yenn yi ñu ngi si suuf décombre yi yenn yi tas nañu si àll bi yenn yi dañoo gaañu donc loolu moo nekk suñu méttitu tey jii nii donc lii ñu opposé pratiquement on peut dire que c'est un bras de fer entre le préfet de Guédiawaye ak les riverains parce que sommation même bu ñu jox ñaari cause la benn bi dañu ne riverain dañu ne fii day xeeñ da leen di xeeñ mbaam te boo leen xoolee nii si ginnaaw gis ngeen salte kese la seen mbaam yi bu ñu deewee seen ginaar yi seen mbalit yëpp fii lañ koy këpp ñun ñoo koy mujjee nettoyer ñu wëlbatiku comme nee nañu si euh, tubaab ku qui veut noyer son chien l'accuse de rage léegi nag ñu génneel ñu benn décret soi-disant en deux mille euh, dix-neuf Euh, du 1er mars 2019, comme quoi le décret du président instituant euh, le site comme réserve naturelle. vraiment xool bu jeex mënuma sax wax parce que ñëw gis ñu détruire ni parc yi wax dëgg yàlla mbaam yi dugg ci àll bi même bu dul dara tam dañoo yor ay bakkan waaw nga gis ko rek image rek déjà c'est choquant. mais corona bi bu mu amee ren bu ñu joxe aliment di ko jox ñii di yëngu yëngu si yeneen jur yi mais dañ ñu woo laaj ñu ñu lan lañ soxla ñu jox ñu aliment jàppale ñu. lu mu néew néew néew ñi ngi sant ne état ba ngi ñuy jàppale donc nan la mu ne un nan ba moo xam ne ne un président lay teg politique moom muy xeex cette politique du président donc je veux dire au président de la république attention il a des agents de l'état <laughs> qui sont pas là pour toi donc euh, aujourd'hui nañu xam benn affaire ñun ñi di yëngu ci mbaam on est des acteurs de développement te amul benn organisation aussi structurée que la filière porcine parce que ñun on existe en moins de quatre ans depuis bu ñu commencé structuration on a recensé 3166 acteurs ñun xam nañu ñaata mbaam ñoo nekk dans chacun de nos parcs parcs au Sénégal on peut dire à Dakar ñaata acteurs nekk acteurs on peut dire ñaata pôle de production ñoo nekk à Dakar il y a 10 pôles de production dans chaque gox dans tout le tout Sénégal mun nañ la ne gox bu nekk ñaata acteurs ñoo fa nekk ñaata mbaam ñoo fa nekk même mbaam yi jaay di ko jaay Guinée Bissau wax leen leen information bu sénégalais war dans le secteur de l' élevage au Sénégal ñaari produit kese la ñu mën a exporter maanaam lem la ak mbaam xuux te tey Sénégal depuis plus de cinquante ans moom mooy ravitaay Guinée-Bissau parce que Guinée-Bissau 60 pour cent de leur consommation si yàpp mbaam la te Sénégal lañ koy jëlee. te ñun dañu jóg ne président de la république bu ñu nekkee interprofession boo leen ñu accompagner cinq ans mais ñun ñu positionné Sénégal comme pays le premier pays exportateur de porc en Afrique de l'Ouest Côte d'Ivoire soixante la la soxla de consommation de porc ils ne peuvent produire que vingt mille tonnes. Sénégal mun na positionné pour livrer Côte d'Ivoire mun na pour livrer Côte kii nu Burkina mun na pour livrer cap donc il faut que nit yi arrêté te xam na ne ñun on est des ni nga yaree say laadum la ñu yoree suñu laadum xuux ni nga yaree say noonu la ñu yoree suñu mbaam. bu dee nag xokkatal la ñuy jaay ñun dëkk bi kenn mënuñu xokkatal ñun dañu jàng si dëkk bi ngay préfet ngay procureur ëppoo ñu diplôme parce que dañu am diplôme si dëkk bi lañu jàng nous on a décidé bañ toog ci ay bureau nekk fii di élever di gagner suñu xaalis di jël suñu impôt di la fay sa salaire kon kenn duñu manquer de respect. déjà préfet bi il nous a il nous a reçu de façon très hostile déjà si nu mu ñu accueillir rek xuloo la ñu accueillir boo ñu tuumaal bañ koy remettre à l'ordre donc tey jii nii liñ ko wax daf ñu ne kañ ngañ fiy jugee ñu ne ko ñun mun ñu la ne jour bii lañ fiy jóge parce que ñun ñi mbaam yi ñu yor nii du suñu néeg lañ koy def du suñu kër lañ koy def y un plan national qui est sur place pour ñu am benn kii euh, site pour ñu yàq kii mbaam donc on dépend de ce plan là mënuñu la ne lii parce que ce serait trahir les acteurs du port léegi moom il nous di dit qu'il allait rendre compte loolu la ñu wax donc mais s'il rencontre il revient vers nous il nous dit que j'ai rendu lii moo xew mais du xëy xëy xëy bett nit ñi ñëw di yàq seen alal nii. daf ñu waroon jàppale ndax ay jigéen ñoo fi nekk ay yaay ndax boo xoolee am na ay maire yoo xam ne am nañ plus de soixante-dix ans ñoo ngi fii ba tey di exercer métier bi te mënoon nañoo toog mais tooguñu mais amour bi la te en plus ci la ñu yor suñuy njaboot ñun xale yi ci dugg. nouvelle génération dañoo bëgg a moderniser yar mbaam moo tax ñun jeunes yi fii am na sax ay étudiants yu fi nekk dañuy liggéey dañuy jàngi ba wàcc ñëw naanal dem ñibbi euh, loolu moo tax ñu bëgg daal mu affaire bi arrêté parce que ay jigéen lañu te ku xam jigéenu njaago xam ne xamuñu tàllal loxo liggéey rek lañu xam. te ci la ñu yor suñu doom yi ci la ñu yor suñuy famille ci la ñuy faj suñuy soxla ndax comme salaire fonctionnaire ñun tam suñu mbaam yi mooy suñu salaire. fu mu nekk nii ce comme euh, cheptel sur le sur place am na 1093 porcs au temps du recensement cela fait à peu près deux mois te mbaam xam nga c'est site de production dañuy yar mbaam kon dañuy jur donc da koy estimer mu jëm kaw l'estimation bu ñu defoon au début c'était 71 millions de francs moo nekk sur place. que boo déggee élevage dañu ne famille la Sénégal dañu ne c'est la famille de l'élevage donc maa ngi ñaxtu ñii nekk ci laadum ñi nekk ci xar ñi nekk ci lapin ñi nekk si nag maison des éleveurs euh, organisation de l'élevage yi xam nga les institutions internationales les mouvements citoyens chrétiens yu fi nekk muy IMCA Scoutis surtout du Sénégal tous les partenaires internationaux on va les impliquer parce que man am na leen lu ma métti ñemewoo benn préfet fii ñemewul Dakar jël camion ne ko demal tas fora mos ngeen camion dem dal si benn nag rey foora bu boobaa ñu xam ne alpulaar yi ñoo leen gën a dee kenn ñemewul dugg seeraas fekk fa ay xar tër leen mais ñun la ñu bëgg yàpp mooy catholique amul baat si dëkk bi ñun ñooy ñàkk fayde tey nag dañ xam ne ne ñu dañ fi am baat te gis nga mbaam yi ñu rey ak mbaam yi ñu gaañ ak parc ñu détruire ay jigéen seen rongoñ du tuuru ay jeunes seen rongoñ du tuuru nañu xam ne ne y a deux deux deux deux deux justice dans ce monde la justice de l'homme. te je sais que le président de la République va sanctionner au plus haut. S'il faut faire sortir ce préfet, il sera sanctionné. Deuxième, il y la justice de Dieu. te ñun yàlla lañ gëm gis nga képp ku fi toroxal nit yàlla dala koy fay au centuple. nous appelons toutes les personnes tous les éleveurs du Sénégal et du monde à se mobiliser pour aider la filière euh, pour jàppale filière mbaam yar yaru mbaamu Sénégal parce que yaru mbaam Sénégal c'est en danger hein. mois je me dis sax quelque part ndax léegi ñoom dañu bëgg a léegi kenn dootu lekk mbaam Sénégal on se pose la question parce que foo mu nekk ni am na ñeen ñoo xam ne ñu ngi euh, n'importe quelle activité on les inquiète pas et c'est sur le même site pourquoi ñun ñu ñëw fekk ñu fi du ñuy kii du yàqal donc on interpelle le chef de l'État aussi que moom mu wax kii administré mi qu'il respecte aussi qu'il respecte les gens il faut qu'il nous respecte on interpelle tout le monde parce que xam nga bu ñu waxee des fois nit ñi sax dañuy yaakaar dañuy wax kii xeexu catholique mais loolu sax da ciy bokk ndaxte ku wax mbaam mbaam Sénégal boo ko waxee bien que am na musulman yi bëri yu ciy liggéey mais mbaam moom boo ko waxee catholique moo tax. donc on invite tous les paroissiens tous les catholiques tous les musulmans tous les éleveurs du Sénégal à se soulever contre injustice bi ñu ñuy def nii. maa ngi lancé appel euh, président bi gën ñoo jàppale parce que ñun fii la suñu sutura nekk tey jii bu ñu fi jëlee wala ñu ne nañ fi jëlee mbaam yi mbaam xajul ci kër munoo ko dugal ci néeg ginaar sax munoo fanaan ak moom waxatuma la ak mbaam ñuy ñaan euh, président de la république mu jàppale ñu ci xeex bi parce que ay jigéen lañu te wéeruñu ci dara lu dul lii. mu nekkoon ay kàddu yu ñu fa jëlee. kilifay bërëb ba ñu ngi ñaan bépp kuréel bu ëmb wàllum yarum jur nga jàppale leen ci xeex bile ba ci président de la république nemmeeku itam ay yàqu-yàqu ba ay mbaam yi ci am ay gaañu yu jéggi dayoo ci seeni kàddu nee nañ xeex bi pareeguñ ci léegi